moom mu may dégg amul fenn fu muy dem biir Sénégal ay njabootu sàmb sa kàddu di di ruube wala di ko tooñ amut parce que ñun yaruñu suñu njaboot ci loolu bu muy dem Koungheul moom moo tooñ même chose am problème encore ak jigéen fante Sall il a un problème avec la femme waaw bu mu demaatee añam yéen xool leen maataam nu mu yaatoo rek yow amoo fenn fooy dem biir Matam ngay taxaw ne da ngay dem di cokkaas yi ay ñit ba biir añam may comme xool leen Dakar nu mu toll rek ay ñit ne dañuy caravane ay ñit ne dañuy caravane amuñu fenn fu ñu dem bi Dakar ne dañuy ñëw suma buntu kër ma waxaat ko fii ku may yepp rek danga fekk maa ngi nelaw te yàkkamtiwuma kenn yàkkamtiwuma kenn te am na lu ngeen xam ne du suma cër am na lu ngeen xam ne du suma cër yow nag soo toogee fi tey dina yaa ngi woote ay gatsa gatsa parce que tontu du forox am na lu ngeen xam ne ni ñun duñ leen ci fekk du suñu cër wante je te garantis que la peur va changer de camp c'est moi qui te le wolof njaay nag nee na woyu bandee bàyyam te xam nga ma su la neexee nag nga nekk fi di ruubee rek dal di ruubee rek ma waxaat la ko dinañ daje. dinañ daje conseil bu ma lay jox mooy bàyyil di fooye sa xel ngay bàyyi nappaate yu ngay woote nii ak di jéem a naan fitu nit ñi ragal amu fii te xamante nañu fen nga ba jot ci réew mi na nga góorgóorlu maintenant teg fen ci suuf te nga jëm a liggéey campagne bi def nañ lu ëpp dix jours de campagne maa ngi leen di laaj yéen askanu senegal fan ngeen dégg Mimi mu def leen une proposition concrète fan lan la wax ci dund bi dara. lan la wax ci jàng bi lan la wax ci napp bi lan la wax ci mbëkk gaal gi lan la wax ci ëllëgu Sénégal balaa may dee muy wax